ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na ñoo ngi seen émission mag bi nga xamante mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag woo ngeen ñoo mën a xaar ne tey nag ñoo génn ba tey ñoo ngi biir Pikine seet si ki nga xamante mooy Malick Ndiaye 37 fou borom dof yi moom mi nga xamante moo bëri woon kii nga xamante mooy Bou yàlla dogal mu boog victoire bi yéen a ngi dégg bàyyi mu loxo bu Siteu te maa ay yi man. gis ngeen nuyooguma sax ñoom fi mu ñoo ngi contesté ndax nee na buur dafa daanu te moom dugal na recours bi CNG ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan wi Malick nuyu naa la. waaw fay naa la di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay seen déplacement bu ngeen déplacement ñëw fii seet si ma bëgg waxtaan ak man ci kaadaru làmb maa ngi leen si sant daal di leen gërëm waaw. di sant di leen gërëm yéen ñëpp di sant. li taxawal bëri na trop. kooka la waaw jaaykat bi gis nga de mooy awa awa moom gis nga euh, heure bi moom bu jotee rek day rassisté koñ bi waa gis nga. mais ñu gis sa combat ak Bou bi mu taxawee coow li bëri woon na. seen diggante komba boobu bokk na ci combat seen combat ak combat Laurent bi bokk na ci combat yi jaay journée bi. ngeen ngeen defoon promo bi ci wàllu lépp entraînement bi naka la demee woon. entraînement bi waaw entraînement bi ñun nekk nañ ci entraînement bi bañu ñu fomb combat bi comprendre ma yow ne combat bi amatul waaw man ba léegi man combat bi man ba mu amatul man dama daf samay sorti di leen gëmloo ne man promoteur yi man ak yéen. sama sama sama contrat ak yéen dafa mat. man loolu laa jàppoon te loolu laa loolu laa nekkoon ak promoteur yi mais teewul maa nga woon samay entraînement de entraînement. mais Pape Sarr fii lay fréquenté comprendre nga fa ma yow ci combat bi xëy na gisatuñ ko sax waaw ndax parce que gars yi ngi koy sànni xeer di ko xamal ne waa café gi gëj nañ la gis waaw te peut-être combat bi combat bi ba muy am ba combat bi na muy jeexee ba ba bi na muy na muy jeexee fii la doon fréquenté kon gars yi na mënoon la waa AV yi nee nañ waaw waroo bàyyi fii nag dégg nga Pape Sarr maa lay yóbbante loolu. noonu la demee quoi Pape Sarr ma jox xëy na moom dafa jàppoon ne man sorti bu ma sorti bu ma def comprendre point ak yow di premier première mbër bu njëkk a def sorti le 25 juillet bi ba mu yàqoo man maay première mbër bu def sorti ne sama combat ak promoteur yi comprendre point yow jeex na ba ay Laurent Mendy ay Laurent xaw ma dem ay Laurent Ndiago dem ñoom it comprendre point ak yow dem ñoomit ba naan topp sama tànk naan seen contrat jeex na comprends nga xëy na loolu la ma mere woon pour ma pare sama combat ndax parce que ñi samay jëwriñ sëñ ah. jëwriñ su ma déggee nee na yow bokkoo woon sax ci programme bi mais comme que moom doomu Pikine la. moo tax mu boole la ci dugal la ci ndax yow waroon waxee noonu doon na xaat ci ku ne mu njëkk a wax mais même pas yow te yow yaa njëkk a génn. def sotti xaaru woon loolu ci yow. non. demewul noonu sax. mais ay dof lañu. du ñu ay dof. da ngay déglu ma la dof ji dañ koy ku ñun ku ñu jàppee dof yow yaay dof. tem la nii rek muy 37 pour ñu doon ay booy comprendre point tuddee ko suñu bopp te bëreeguñu comprendre point yow. nekk ci tem boobu ba yàlla dogal ma génn si doon lutteur ñi génn si doon ay rappeur comprendre point yow 37 pour daal dafa bëri. maa ngi sant groupe 37 pour bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm sama mafia bi munu ma leen bàyyi waa yéen munu leen ma bàyyi. ndax parce que ñoo ngi waxtaan si groupe bi maa ngi li ngeen may taxawoo maa ngi li ngeen may doolelee comprendre yow. yàlla moom seen fay daal yàlla leen yàlla fay fu yëpp maa leen sant ku lu dof fu bu nekk Tëngéej ak fu bu nekk keesak ak ak bu nekk man la si Grand Yoff ak ak bu nekk Kolda ak fu bu nekk Casamance ak maa nga nuyu ku lu dof dof yëpp maa ngi leen di nuyu. waaw mais ma ci combat bi. parce que bi ma bi ma bi ma gisee nga dugg ci làmb ji. def nga say débat dépp ba benn moment. nga jékki-jékki simeeku. daw dem ci stade bi nga ne ana ñu doon wax ne du ma ñëw. ana ñu doon wax naan du ma bëri si. lan moo waraloon loolu. waaw loolu lu ko waraloon mooy li ma la wax rek man dama man làmb ji sax dama jàppoon ne man làmb ji du ko bëree. ndax lan. ndax parce que fa ma jàppoon man fa laa jàpp ndax Pape Sarr la ma ko doon laaj. avant ko avant ñuy màggali. samay mag samay mag a ngi nii duñ ma bàyyi ma fen musaa Ndiaye sama mag la. mais mais mais ma tuuti mu am lu ma ci sànni dégg naa bu Siteu mu ne euh, danga soxla woon xaalis moo taxoon nga dawoon toogi Mbàkke bu subaa nga dugg Touba gannaaw suba nga dem toogi Mbàkke xaalis nga soxla woon moo tax nga dem toog foofu bañ a ñëw bëri te bu la joxul woon doo ñëw bëri si. non demewul noonu man kenn joxuma dara. ba léegi nii. non non kenn joxuma dara. lamb ji cadre fay rek pour ma ma maa ngi ñëw bëri bëri si non Eleye moom may dégg joxuma dara. kon li nga doon laaj kenn jotu la cee jox dara. non non ndax pa noonu la demee nag kenn joxuma dara kenn joxuma dara man maa ñëw bëri si sama bëri si bopp ak lu gën a yokk ma bëre man Eumeu Sène si la bokk ndax parce que ba ne suba la làmb ji la mu Eumeu Sène woo na ma mbër ganaan mu ne ma ah man man moom ak lañang ñuy waxtaan mënu ma mbër mënu ma ah mën a man pare naa fi combat boo xam ne pare wu ma comprendre ma yow mais du ma ne la nga jël combat bi nga bëree yow yaa xam sam bopp comprendre point yow mais woo naa bira seen waxtaan ak moom comprendre point yow te ne leen combat bi boo ko bëriwul dañ lay aj cinq ans yooyu quoi ba ma woowee ma ne ko dinaa waxtaan ak samay mbok moom ba ma woowee si guddi gi ba laa waxtaan ak samay mbokk ñëw bëri si si laa woo Elay na ko damay bëri si. kon yow bi ci prise sama diggante man ak yow. kon biñ ne suba la combat bi ci ci ci ci samedi ba nga doog a jugee Mbacke xaw ma Touba ñëw. man nekk mu xam nga Bou Siteu moo kon xamut fu ma nekk. moo ngi naan Mbacke naan naan naan naan kii nit bi wax day xam li ko wax man fa ma nekkoon maa ngi woon Jurbel samay njaboot. maa ngi woon samay njaboot. Jurbel fa ma dëkk. fa laa nekkoon moo kon naa ay bu naan ay Mbacke ay Touba day wax lu ko neex rek comprendre fa ma yow. moom lu ma koy wax ginaaru kookali moom mënu maa daan yoru xam-xam bu ma daan. lool na nag met da koy métti ginaaru kookali. ginaaru kookali boobu ma dama koo daan. dama koo daan damaa yor bi leer. foo ko daanee nag foo ko daanee. dinaa ñëw dinaa ñëw ci combat bi. lan moo tax bi arbitre sifflé njaap yi nga doon def di sëgg ba ci suuf wàcc loolu lan la loolu loolu moom yéeme na di. waaw loolu samay fem la rek xam nga mbër bu nekk am nga ay fem Malick Ndiaye ak ay femam rek. mais ñu gis ngeen jàppante. Mm-hmm. nga jàppante nga door ay coup pompe pompe waat pompe pompe waat lu tax xooluloo ko ndax bi nga pompee benn ñaar moom santé nu kuy saf na ba mu jël loxoom tef ci est que yaa ngi ko doon gis. non gisuma ko man man man dóor yi ma koy dóor yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xam naa ni moom mën a la samaay samay tànk la jëm loolu sóor naa ko nag. moo tax sàmmoo say tànk. non looloo tax ma daan ko. moom la abit bi jox ndam. mais parce que da nga koo ko dóor ko dóoraat ko mu dàq la plaqué. nga dóor déclenché mbot bi. ngeen ànd rëpp. mais bi ngeen. ba léegi kon combat bi. ku amut seetlu. ku amut seetlu. mënu laa wax combat bi. naka la combat bi demee. combat bi dama ko dóor di ko calqué mu daw dàq ma plaqué. bu ma moom bu fekkoon ma ne la samaay dafa am doole sax wala wala ma ëpp doole dàq plaqué boobu mu ne ma see daan. comprendre nga bu si daa amul doole. ma ban ban koo kooku daa am daa am ma ko doon rey. nga naan lan dama ko duma daan ko fambam yooyu noonu noonu noonu moom xoolal dóor xam naa ne dóor yi métti moo tax mu jébbalu xam naa dóor yi dóor yëpp day jébbalu loo gis ba mu dawee laal sama tànk lu muy gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw daf naa rotation ba ngoobu loxo bii man Malick Ndiaye sànni sama benn loxo ba ñuy ñëw wàcc suuf ma fàq ko ba ma koy fàq mu dóor dënn si kaw saako bi saako jël la. arbitre yi ñun abaa ñoo bari dañ naan saako. mais mais mais est-ce que yi gis nañ loolu. mais arbitre yi mën nañ bañ a gis loolu tamit joxe victoire loolu mënoo ci dara. lu yàlla tudd la ci combat bi yàlla moo ne woon combat bi. te billaahi wallaahi wataalaahi ak sama bakkanu doom ba may bari ji combat bi nee na ma di ko daan waaye moom la ñu jox victoire. barki alxuraane karim. kan moo la wax loolu. samay nit. say nit wala say sëriñ loolu naka la mën a nekk dama goo ci làmb ñu wax la ni làmb ji demee. bu ma amatee mille combats yàlla nañ ma dóor ma daanu barki Alxuraane Karim yàlla bu ma tekk ci àdduna sëñ Afia laa yaakaar àdduna ak lu ma liggéeyal sëñ Afia yàlla ma si yàlla may dërëm laa la wax. billaahi wallaahi watalaay woo naa jëwrin jëwrin woo na ma téléphone man Malick Ndiaye ma ko ko du ma bàyyi ma fen mu ngi nii Abdou Ndiaye woo na ma téléphone ma ma wax ko am na samay boo yu ma woo téléphone ma ne leen combat bu ma ñëwee dina daan Bou Siteu mais Bou Siteu la ñu jox victoire kenn du ma jox victoire xam naa ko. ba fi may toog di wax ak yow nii da ngaa jàpp ni yaa daan Bou barki Serigne Bamba dama ko daan te dinañ ma jox sama victoire si kàttanu yàlla. est-ce que def nga li la war sa diggante ak CNG. def naa lépp lu ma war ndax parce que ànd ak naag sama ménagère Matar Ndiaye dem CNG mu bind ko sama kanam ñu dem ba biir CNG mu mu déposé ko sama kanam daf ko si enveloppe ak juróomi junni jox ko damay dégg bu Siteu naan maa ko daan ba toog ci kawam kon ko loolu loolu. mais maa ko daan ba toog ci koom kaw ko xam nga am na mbot yoo xamante ne dama lay laaj rek lu ma la wax nit am na am na am na yenn jël mu lay jël boo ko mbotee day da moom mun na jiitu ba pare nga nga waraat sa kaw. waa waa waa léegi baa boo ah, nag. mais ma 37 fu bi la. kii mooy Kéemaan Fall. boo ko xamut Pikine gi xam nga ko si karkat bu mag la. Kéemaan fu sikarkat bu mag la bu teewoon micro bi bu la sikaree tey loo yor da ko koy jox. balaa ñoo dem kay balaa ñoo dem kay dina laal benn. après tamit dina la waaw. mais mais mais kooku non Faye dégg nga Faye Faye sant la wax ko Faye sant la. loolu <laughs> la demee. <laughs> mais bi nga jugee ci combat bi ak léegi. est-ce que promoteur yaa ngi lay contacter. bëgg sa yeneen combat ankay barki Serigne Mbamba Malick Ndiaye dinaa la ko wax du ma la ko nëbb ñëpp nee nañ Malick Ndiaye dafa màgget ñi ne Malick Ndiaye dafa jeexal ñi ne Malick Ndiaye nekkatu fi eh, léegi yow combat bi da ngaa gis ne dara nekkatu fi non yow yow da ngaa wax léegi ne Bou Siteu amatul doole te Bou Siteu dàq na la plaqué ngeen ànd rëpp. déedéet yow di kon yaa fi wax léegi Bou Siteu amatul doole. combat bi dama bëgg nga zoom ko. déedéet ma fii kenn dafa zoom. tungu ne dañoo ñu la tekk déedéet man wan nga ma ba ma gis. non wan naa la ba nga gis léegi dama koy wan waa Sénégal waa Sénégal. ñu xam man fu ma daanee Bou Siteu ma ne leen fii la. te sama père taba te dang may déglu man sama père sama père Taba Gueye woo naa ko woo naa Taba Gueye waxtaan naa seeg moom comprends point yow mu ne Lac de mun a ne démb démb démb la waxoon dina ko teg xëy na boo gisee tegu ko gàmbu Njaasaan bi moo tax père Bécaye Mbaye comprends point yow mu ngi Njaasaan konaal maa ngi Modou Mbaye déggante nañ euh, démb su guddi ma laaj ko mu ne ma no dafa am problème mu courant la ma expliqué mais Tapha Gueye maa moom maa ngi numéro am woo naa ko waxtaan naa ak moom nee naa ko père mu ne ma ah ma ne ko billaay wallaay te ba ma ko wooyee lii laa ko wax na ko père mu ne ma ah ma ne ko xam nga lu ma bëgg mu ne ma ah ko man la Malick Ndiaye 37 fu mu ne ma am na lu ñu jot a waxtaan mu conseillé ma doon sama père bu baax nag conseillé na ma lu rafet comprends pas yow bu Bou Siteu daanoo nel Bou moo daano comprends pas yow na ko bu njaax amee nel njaax euh, am comprends pas yow na ko bul am koo faral barki Serigne Touba na ma dina dina ko leeral si ñaari ñaari ñaari boor yëpp loolu la ma wax na ma karal dimanche te xam naa ne sama père bi euh, bii comprendre bi xam naa dimanche prochain dina ko leeral ndax parce que ma ay numéro ñoo ngi déggante. Euh, mais bu loolu weesoo sa combat yow ak ñan la ñuy dox fi mu toll nii. est-ce que pare nga pour bëriwaat ñu bàyyi nee nag mën nga fa jaaya nga bàyyi. waaw man man man du moom mag lu ma def mag. bu si te déggoo Laurent naan la raqam bu jigéen moo ngi kër moo ngi koñam di moo sëy kooku moo ma mag bu si ta moo ngi moo ngi ko moo a ko ñoom jàmm gën di sëy. <laughs> lan mooy loolu moo ngi ko ñoom jàmm di sëy mooy. yow déggoo ma la wax booy Laurent Ndiago dama seetaan benn émission sorteem quoi mu ne Bou Siteu paala ndax parce que raqam bu jigéen suñu koñ fii lay sëy. xam nga ko am raq bu dem ba sëy ba am ay doom comme ba nga am ay jarbaat kooku paala mais lam du ñu mën a taxaw man man du ma mag man xale bu ndaw laa man ñii ñoo ma yar samay ñii ñoo ma ngénte barki Serigne Mbamba. billaahi wallaahi watallaahi jëwri na ma ngénte mais léegi am na kono ma diggante Malick Ndiaye 37 fou ak Laurent Ndiago combat du ko daax. yow kooku du ma moroomam. mais moom ci ndam la jóge déggoo li ma de man trois défaites laa am treize wala yow xamoo sama. mais nag mais nag mais xam naa sa kër Malick Ndiaye seetaan naa la fi. mais Malick da ngaa bàyyi woon. dem kenn gisatu la man musuma bàyyi la mais kenn gisatu la ñaata at nga toog bëriwoo. barki Serigne Fallou Mbacke. bil ñaata at nga toog bëriwoo. sama komba ak Agogo quatre la am si ren. waaw quatre may wax. Euh, reporter boo bëggee nit ñi bëgg la. gis nga xam la ma tax Modou mbay Modou mbay nit ñi bëgg ko. Modou Mbaye bu ba bu père Bekaay Mbaye. xam nga la ma tax nit ñi bëgg ko. dafa ñëw topp si tànk baayam dépassé wul kenn même buy même buy même même même même buy même buy répété sax bu gisee koo xamante ne sama na la samaay nekk ko si yoon wala dara da lay ba nga ñëw comprends point yow. Lamine lu mu wax. mais Lamine sama combat ak Bou Siteu nu muy reporté ku ko gis xam ne Bou Siteu la faral. am déet ah, nit am na droit fa fu ko neex. déedéet non reporter du fa. pas pas pas journaliste wala pas. journaliste yëpp am na kuñ fa. non non non loolu baaxul. loolu baaxul loolu du répéter sa carrière. daan fi nga war a yem xanaa. loolu sa carrière. te yow déglu la yow nga koy def même boo faree yow bu ko wanee na ko jàpp sa biir xool nga dund ko. Modou Mbaye kenn xamul ndax ni ndax Eumeu Sène la faral wala kii. mais mais dinaa ñëw ci yow dinaa ñëw ci yow mais sa diggante ak Laurent Ndiago noo ko gisee. mais yow xam nga ku bëre treize combats bëre Boy Ngaay Boy Ngaay ak Sakess bëri nañ Boy Ngaay man la daan bëre ak yaa ngi dégg fu ma wax yow bëreeg Yadikool bëreeg euh, Afrika bëreeg Simka bëreeg bëreeg euh, Jili Malaajo bëreeg Ñaas Ñaas Njaase Deux bëreeg euh, Trompeur bëreeg man la samaay Fallou Seras bëreeg. yow it. Afrika ak Agogo ak Afrika gaan yow nga naan ma booy boo xamante ne comédien la. kan mooy comédien. booy boobu noonu nga naan ma damay magam saddu moom magam xooluma Liss Ndiago men waaye ban Liss Ndiago ma gën ko doon doomu Ndiago accuma Ndiago man sama yaay Hélène Mendy la tudd maa ngeeg Laurent maa ngeeg Clément maa ngeeg Simon maa ngeeg Cécile maa ngeeg Zanou maa ngeeg Clara maa ngeeg Gomis maa ngeeg Pascal maa ngeeg Adel maa ngeeg Adel maa ngeeg Zo Mendy maa ngeeg Jokin maa Kirisil gënuñu ma doon doomu Ndiago man doomu man Guinée Bissau dëkk kenn mënu laa génne sama cosaanu yaay kenn mënu ma see génne sama Hélène Mbende la tudd waaw Malick làqu ma ko fenn bu si ta ma muy wax loolu laa ko wax man doomu njaago laa kon fi mu toll damaa bokk si famille Joola ah. damaa magu Joola amagu magu Mankañ am magu Njaago fépp nga bokk déggoo la ma am magu Socé Blaise Pascal Cissé yaa naa ma kii Touba Maal sama mag la maa moom ñoo bokk benn yaay maa ngi koy sant di ko gërëm. comprends point yow mag bu sonn si man la comprends point yow mag bu ma jàppale la. sant sa mag Laurent bu baax a baax a baax a baax. sisil maa ngi koy sant bu baax a baax Léon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax. waaw di sant ma ne la sama Simon bu baax a baax a baax sam mag ju baax ji. waaw noonu la demee man accu ma njaa doomu njaago laa de waaw noonu la demee nag. mais fi mu toll nii. ku loo ku loo ku. déggoo kii sama rakk la. sama mbokk la sama deret la. noonu la demee Zanu kaay toog nii leeral leen ko. kaay toog nii leeral leen ko. fi mu toll nii soo ma ak kan. li mën ma say parce que fi mu toll nii ñu ci bëri yaakaaroon nañ ni euh, bàyyi nga. dama ne la Liss Ndiago bu mu ñëwee ma may ko sens. bëreeg moom dama koy may sens. ndaanaan yu ma daan du leen daan. wala déggoo fa ndaanaan yu ma bëreel du bëreeg ñoom. sa digganteeg Tafa Gueye. Tafa Gueye 2 Tafa Gueye 2. Tafa Gueye 2 du mbër. nañu Tafa Gueye 2 du mbër mbëri yi mbër yi daw di la ay Luis Ndiago yi dem di laaj ay di laaj ay Tafa numéro 2 yoon lañ bëgg. dañ koy siffler dama ne nañu bàyyi xale yuy jox paa yi xale dañ koy jox xale 50 50 Luis Ndiago Tafa Gueye du moromam ay cité yi bu nañu jajal seen morom yi di bàyyi daw. combat yi nañu daw xale xale mag ak mag. damay dëgg. dama ne la ñii daw di ko laaj yëpp du ñu ay mbër. du ñu ay mbër yoon la ñuy jéem a ut yoon la ñuy a ut ci moom. xam nañ ne Tapha Gueye numéro 2 mooy loolu. comprends ba yow nañ jël seen morom. ku jëlul Malick Ndiaye 37 pour cent man damay maye. ak ay jadd jadd ay ay yaawu jaa koy laaj. te dafa yaakaar ne moom moo ma daan bu fekkee yaakaar ne moom moo ma daan te am na magu làmb yoo xamante ne la moo tax man lii. lii ma fii ma tegu barki Serigne Touba ay magu làmb ñoo xam ne làmb rek lañ xam si làmb la ñuy toog si làmb la ñuy wax comprendre fa ba làmb tas ñu dugg dem seen kër ku si nekk dama laa yónnee vidéo bi nga seetaan video bi seetaan la rentir bi gis nga vidéo bi boo ko seetaanee te doo si doo seetaanut la rentir bi doo doo gis site bi doo gis la Malick Ndiaye bëri foofu yaa ngi dégg foo nga xajaw la Malick Ndiaye bëri foofu mënoo koo gis ndax parce que mais nag jëli bi nag su gënoon leer ci lay gën a neex jëli bi buñ la joxoon ndam. buñ la joxoon ndam mënu ma ci dara man ba may ñëw wax nañ ma làmb ji noonu lay demee. Ah, léegi su ma la andilee Tapha Gueye 2 looy wax. du ma bëreeg moom ndax parce que bu ma ko daanee dañ ma paa nga daan ma damaa bëgg combat. Ah, boo xamante ne Tapha Gueye 2 mooy paa. waaw dégg ko jàppee waxuma la paa la. waaye soxlawu ma ko. nañ ko jël waaye Tapha Gueye 2 bëreeg Ama Baldé. bëreeg laa la wax. waaye non non non non ma ko. ma andilee wuli looy wax. waaw man de man wuli soxlawu ma ko mais nag mais nag mais nag moom moo ñëw ba ci man dama Malick Ndiaye barki Serigne Touba dama laa bëggal sama bopp mais Malick Ndiaye mënoo daanu ba pare ku ñu la andil nga ne du ma bëreeg moom daanuwuma de dangaa daanu ndax ah, euh, non dangaa daanu supporter a ngi nii waaw dégg may déglu dox bi daal ci Malick Ndiaye ci Malick Ndiaye déglu rek ci Malick Ndiaye laa ko gis déglul barki Alxuraane Karim ak sama bakkanu doom bu fekkee da bu si ta daan na ma yàlla naa torox adduna ak alaxira daan naa ko avant ma ne la sama ay mu yëg sama kaw ku amut seetlu doo ko xaal bëre bu gaaw la nag la Malick Ndiaye bëri foofu man damaa mën a bëri tàgguma sama bopp façon jël bu nekk daanee naa ko nit si ji. mais nag faaw nga entraîné ji waat. damay ma la. waxtaan wax dëgg la ca na dem entraîné ji loolu. damay entraîné ji ji naa ko def loolu moom par force la ndax parce que fuuy bàyyiwuñu ma ma seen noonu. fi mu toll na ngay ñàkk ah. nu demee noonu. waaw mais sëñ Fallou rek. sëñ Fallou rek. waaw noonu la demee ñaanu sëriñ bi la. waa soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñu wax. kàddu yu mu mujj man daal booy yi nekk fii di tàng tàng di rëy band di bandi bandilu te duñu bandi duñu dara ay ragal yu bon lañ ma wax bu si te déglu naa benn sorte mu naan maa koj fële gis nga booy boobu noonu. waaw ah, wax jooju wax jooju faaw nga leeral ko. wallaay wa talaay dalaa ma moom loolu la wax. gis nga moom. xolal. koju la yow koju la. bu da ngay déglu ma wax ak yow. non nee na dafa jógee dina wàcc koj la loolu kay ñëpp seetaan nañ ko. <laughs> barki Serigne Touba ah. booy bi ko waxee affaire xaw na ma jaa neen ma koj maa jaay 37 fu mu jënd galaas. laajal sama sama sama mafia bu ndaw bi ñu ngi nii 37 fu bu ndaw bi gëm geen lool yéen. Ah? ah. ah man yow laay laaj waxuma ñi luñ gëmul luñ gëmul. Malick Ndiaye koj na la wala koju la. déggoo li ma la wax de. man déggoo li koj na la wala koju la Malick laa tontu. pikin ginnaaw raay. yi nga wax yëpp dafa gudd. déglu ma pare rek dama dama lay woon la gën a capable. Pikine Pikine ginnaaw raay caaro yi géejawaay baxdaat bu ma xam nga moom du bandi. fan su bandi la. fan mais dama laa limal fii ma dëkk ne la Pikine ginnaaw raay te média laay waxee ñëpp a koy seetaan géejawaay caaro yi déggoo ma la wax band yóbbu ma waxatuma la ak moom mu naan daf maa koj pour na Serigne Touba dinaa ko képp dinaa ko linjaa ànd ak ay nit ñi caméra ko ma dugal ko sur réseaux sociaux yi ñu xam ne maa Ndiaye moo linjaa bu Siteu. waxal loolu waaj a ko waaj. moom na waaj loolu Malick Ndiaye. làmb ngeen seqoon làmb ji jeexul de. jeexul de abi si abi si abi génnaa na seen déglu ma ma ma ma la de ndax parce que la ma tama ne la jeexul. man dafa taxaw ci média yi na Malick Ndiaye dama ko koj diina te ba ma kojee diina bu ma la expliqué fii. damay expliqué ma naka la demee. damay bëgg a expliqué ma waa léegi Malick. Malick Ndiaye léegi expliqué ma gannaaw moom gannaaw moom dafa taxaw. Equivox maa ngi nuyu suñ ga Babacar bu baax a baax dafa toog Equivox mu ne dalaa koj li Ndiaye la. <laughs> bi mu la kojee la demee. jàmbaar man dama jóge diine jóge kàmb ya di ñëw. comprends point yow ñoom ay tapet lañ ko ñoom ñoo ngi may gis may tërëng. comprends pas yow man ma jóge kàmb yow di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ba si pont bi. comprends yow si la may koj. moom ak booy bi. moom ak ñaari boo gaaynaam e eh, Malick Ndiaye combat bi di yomb affaire yooy eh, ma ne ko booy mu ne maa ma ne ko ginaaru kookali nga ma ne ko yow mu ne ma ah ma ne ko soufflé moo la fi bàyyi dama lay duma daan la mu naan non man damay internet affaire yooyu dugg na fii jaar na fii affaire yooyu quoi ma ne ma ko booy mu ne ma ah ma ne ko man duma damal sa yoon booy jugal sama kanam rek dafay jékki-jékki rek ne ni waay kaay taal leen caméra yi waay naan cottoon nda billaahi wallaahi wata non du ma saaga ba ma ko boleke émission ma suul sama ndey dama ne ko boo si jaaraatee ma ah ah boo si jaaraatee ma mbete barki yenenti yàlla Muhammad bu ma amatee combat yàlla nañ ma dóor ma daanu lépp lu ma amati si làmb yàlla nañ ma daan yàlla bu ma tekki lu ma lu may ut ci yoonu Serigne Touba yàlla buñ ma ci may yàlla bu ma ci am dërëm lu ma ut ci yoonu Serigne Afia yàlla bu ma ci am dërëm kooku kon kooku man damaa liggéey Serigne Afia kon kooku jarul lu ma may waat waat yi bu fekkee lu ma la wax dama wut nii yàlla naa torox àdduna ak alaaxira nga ko barki arxu ak poño ko na ko xoolal na gaañ bi ñaari seenam dama ko naroon indi Pikine kon koñ bi koñu Afia ragal dëkku fi ragal du fi juddoo. loolu fi def fi convoi dox wàccu. yaa ngi dégg fi may waxee yow. la demee man média laay waxee. comme que moom loolu la wax man dinaa ko linjaa moom moom ci boppam man dinaa ko du ma ko de waxuma dama koy linjaa jël alalam wala dara de ndax média laay waxee. man sama koñ kenn merew ma si bëri bu bëri ndax parce que ñoom ba ñëwee tax tax xoolaat combat bi dañoo xam ne bu Siteu dafa daanu. barki alxuraane karim bu Siteu am na soxla. non man sama recours man def naa ko man dañ ma koy jox. xam naa ne man sama victoire dañ ma koy jox. barki Alxuraane Karim moot gët maa ngi koy sant Sifo Mbay maa ngi lay sant Sifo waaw doomu ndey moot gët comme renfant yow maa ngi koy sant du ko gërëm waaw moo gët nag waaw mooy loolu gesul 37 pou bi yaa ngi dégg ma yow moo gët 37 pou bi yëpp ngi sa ginnaaw amul yooyu de moo gët moo gët laay waxal mais mais mais dama bëgg nga waxal ma tuuti c'est hmm. lan nga combat Bombardier waaw seetaan seetaan naa ko. naka nga ko gisee MMA bi. non man MMA bi nu ma ko gisee man mbëru mbër yi man MMA daal nu ma ko gisee nekkul di da ngay mën bëre rek mën dóor rek comprendre fu ma ak yow jug dem fa ne da ngay da ngay def MMA man pour man pour man am na leneen loo war a jàng leneen ak leneen. lan nga ci jàngee parce que ñu bay bi Bombardier di dem ñaanaloon nañ ko et puis yaboon nañ ko yéene nañ ko mu am ndam ndax drapeau Sénégal la doon xeexal keroog mais ñu ci bëri dañoo gis ne combat bi dafa yomb combat bi dafa gaaw kaaw bi naka nga ko jàngatee. naka laa ko jàngatee ndax parce que Bombardier moom ku ko xam-xam ne day ñëw man nu ma jàngatee combat bi damaa liir ne kon waa ji moom dafa jàng jee da ko liir da ko toog di ko seetaan di ko togg di ko togg di ko seetaan jàng daf koo jàng ndax parce que nu ma gis nu ma xeexee moom comme ak yow. gisoo waa ji arrière la xeex ak moom. kon kon jàng na Bombardier man pour man. sigur na ko xam ne. Bombardier mii day ñëw. li Bombardier di ñëw yëpp dugal na trois trois coups. Mhm. direct. Mhm. ba bi bi Bombardier di kaaw. dafa def mhm. rotation. Bombardier ñëw daanu. dëgg la taxawoon fa la Bombardier daanu. mu bëgg ko dolli fa sa waa yegg suuf. dëgg la ndax parce que Bombardier moom tànkam du jug te gis nga waa ji day am atu du dóor si tànk bi comprendre nga yow du dóor. du pour mu perdre équilibre dóor si biir. comprends nga te Bombardier tànkam daa diis te moom mu mënul wékk moom moom dóor rek la mën ak jàpp ak ak la daan la. ñu ci bàyyi nee nañ euh, ñaanu ma yàlla nit ñee ko wax. Mhm. nee nañ di nga ci gis mbër mu dem mais buy ñëw ci kaw bi yàlla lañ koy duggal ndax mbër yi ñu dóor tànk. Mhm. te jàpp rek la ñu mën xeex bi sax demeewul noonu. Mhm. est-ce que loolu mbër yi mbëru mbëru mbëru làmb yi est-ce que mën nañoo defi MMA. ah mais tamit événement bi ma gis kat wax dëgg yàlla moom dafa am lu mu jàng nekkul da ngay loo xarañ ci bëre bëre bëre bëre war nga war nga ut ay ay ay taay ay dégg naa ay taay kondo dañ koy jàng ay karaté dañ koy jàng ay kung dañ koy jàng lig goromet dañ koy jàng bëre dañ koy jàng ndax parce que sénégalais yi dugg na si. mais yow ku la yaboon yóbbu la dinga ko def. non du ma ko def te jàng ma ko lu ma jàngul du ma ko def xaalis jarul ma ko sama bakkan bi moo ma ko gënal fukki yoon ak juróom. xalaat nga ne bakkan da ciy def. ah lu luy ku ko gis xam na ne du làmb ji événement du làmb de. non non. maa yaa daa mel ni day delloo avance bi. non man delloo ma avance. yow daal yow bi. non non sans sans tëj bi sax. dóor lan lay dóor. nga kaaw wala ñu dóor la ñaari dóor nga nga kaaw ñun bëri fii ñaata. daa am dóor la ñun bëri ñaata dóor la ñuy dóorante. wax nga dëgg <laughs> ah, man léegi dof bi wax na waxi nit de. <laughs> ah ah ma dof bi ku ko jàppee dof yaay dof de. si làmb ji moom <laughs> da ngay gis mbër yoo xam dañuy dóorante cinquante coups kenn du kaaw benn coup la lay dóor fekk daal. kon li ma lay bu baax a baax. te noonu la demee nag. te si ay plan la koy teg. kon nag mbër yi dama leen di conseiller képp ku képp kuy dugg si lii. na nga dem nag entraîner affaire bi. jàng comme ñoom li ñuy def nga koy def. li gërëmet dafal. karaté dafal. judo dafal. lépp nga def ah man loolu laay conseillé sa mbokku mbër yi. tàggatoo ñu tëj ñoo ngi may signaler temps bi. mais làmb nag moo ngi dee nag. Hmm. waaw. ndax parce que man ministre ministre bi moo ñu ko teg. tey ñaata mbër nga dégg ne man la samaay ñoo ngi dem ci événement bi bàyyi làmb Sénégal kon làmb ngi dee. lan nga gis ne ministre moom la woon def loo xam te ne day suqali làmb. non parce que dama gis ne man la samaay football yi ñoo ngi am. tennis yi ñoo ngi am comprendre ma yow moom lan moo rey làmb ji trois ans yu mu téye làmb ji làmb amul te football moo ngi am ah boxe moo ngi am gis nga kin boxe moo ngi am événement bi moo ngi am. bois di sax ngi tëgg. te bois di ñu ngi tëgg mais man mais kon moom bu téye làmb trois ans làmb euh, te bois di tëgg football yi di daw comprendre ma yow kon man dama gis ne moom dafa bëgg rey rey làmb. ñu jàppale dimbali ñu ndax parce que suñu mbër yëpp ngi daw. ñun làmb mooy suñu cosaan ñun làmb lañ xam mais dem nañ ba ba ba ba événement bëgg doon suñ suñu cosaan mbër boo wax mu ne événement. Ah, ah, événement ah dégg naa. yoon ba moo ngi ca yoon ba Boy Niang dégg naa. Eh, yoon ba dégg naa. si tàng sa naa rek rek. yoon dégg naa kii waay nu mu tuddati waay. 2 Ziga ba. waaw mais. non man damay dem sax waaw loolu man moo gën moom mooy yóbbu déggoo ma laax moo gën déggoo la ma maa ngi sa ginnaaw doomu nday siboo samay grand Moussa Ndiaye sant ay mbayja samay booy Ibulaa ya ngi nii zanu sama mbokk la sama mbokk si côté sama côté yaay si njaago bi comprendre ma yow kon man doomu tuur laa nee la demee nit mboq Pa Souley sama doomu ndey comprendre ma yow ñoo koy Kéemaan Fall sikarkat di sant sama mafia 37 fu bu ndaw bi comprendre ma yow di sant sama pap Mor Faye di sant fii ñëpp comprendre ma yow képp ku may kuy sonn man rek maa ngi lay sant di la waa sant waa Père Makan sama pap Mout Faye waa ñoon Loo Mbaay maa ngi leen di sant di leen gërëm comprends ma yow di sant daal ngalam maa ngi koy sant comprends sant mafia 37 fou bi yëpp yëpp yëpp yëpp waaw léegi après dama bëgg nga daggal ma ko dugal envoyé ma ko comprends ma mën ko envoyé sama groupe fuuy incha allah man fàttewuma leen ndax parce que dañ may teewal comprends fay dañ may taxawal dañ may doolel comprends fa yow ndax parce que bu ma gesoo ak lu ma mënte fu ma mënte dem bu ma gesoo ba ges sama ginnaaw gis leen damay doon ñaar comprends fa di ñaanal dund sama gaan sama doomu ndey yéen bi yàlla la ko yàlla teggil waa di ñaanal ay ñoon góor a Sarr dama bëgg nga tegal nga taggal taggal léppay ma ko waa kampenal Moussa Ndiaye góor a Sarr waaw euh, Khalifa Bey waay waaw euh, Khalifa Bey Moussa Ndiaye góor a Sarr yé waaw ak kii waay Modou Mbaye waaw Modou Mbaye comprendre góor a Sarr maa ngi leen di sant bu baax a baax Moussa Ndiaye di leen sant bu baax Khalifa Bey di leen sant bu baax baax a baax a Omar Tarka maa ngi koy sant bu baax a baax mafia Pikine bi daal maa ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax parce que ñoom ñooy 100 pour cent ñoo xamante ñoom ñoo njëkk ñoo njëkk a def 100 pour cent koso bi 100 pour cent Pikine dafa am tey jii doomu Pikine fu mu rentré si koso bi mën na la samaay kenn du la pakate ndax parce que 100 pour cent gars bu ñuy wax 100 pour cent nii koso la njëkkee fa la jógee waaw man Pape man man. parti syndicat Baye Seras ñoo fa taxawaloon mën a la sama drapeau Pikine kon ñu ñoo xeex loolu yaa ngi dégg fu ma ak yow ñu fay tëgg ay tournoi tournoi bu ñu fa tëgg ma jël ko wala Baye Seras jël ko wala parti jël ko ñu génn ko ci biti boo boo toogoon tuuti mën naa dugg sama gaale génn la ay trophée yoo xamante ne si bëree laa ko amee koso di sant Aliou Aliou Mbaam Géejawaay maa ngi koy sant waaw di sant sama gars yëpp yëpp yëpp daal maa ngi leen sant waaw mooy loolu waa camp pénal waa niiru comprendre waa Cap Manuel comprendre fu ma yow waaye maa ngi sant waa jël bi yëpp di leen bëggee ndax parce que sama combat bi comprendre fu ma yow ay tiset yu bëri laa def yónnee ko camp pénal niiru comprendre fu ma yow waaw te jot nañ ci combat bi xam nañ combat bi nu mu demee bu si moom mënu maa daan ginaaru kookale la loolu la noonu lay demee nag. gis ngeen ni lañ koy defee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje beneen yoon ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.